jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngeen mbokk internet yi nga xam ne yéen ngi ci wasaare point com ñuy suivre aussi ci wasaare société tey ñu nekk ci muy cootal bi ñu wax ni bëgg fas yéene Cheikh ak euh, Cheikh Ahmadou Bamba wala Cheikh euh, Fadel waxtaan bi yaatoo yaatu Fadel nag ñu joxee mbokk yi xam nañ ko ci association bi ñuy association FILS nekk association bi yëngu ci ak insertion des lutteurs du Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba Mboup jiite ko nekk association boo xam ne depuis ñu teg seen tànk ci Sénégal ba léegi ñu di euh, nga xam ne ñu ngi koy tëggal bëri ñu jàpp ci organisation yi bu baax a baax naa ne tey lu bi di commencé di wàññeeku ci mbëri c'est grâce à l'association bi nga xam ne moom mooy association FILS ñu toog nag ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Fadel Diouf Euh, yor lépp lu jëm ci wàll yor comité bi nga xam ne nii moom la comité formation insertion ci association bi euh, aussi di ci liggéey liggéey bu am pare nekk DG bu Carrefour ñu xam ko am liggéeyam bu am solo bi nga xam ne nii moom ak dañ ci ñëw sax a mais tey bu ñu toogee ak Fadel dañuy waxtaan ak moom ci làmb ji waxtaan moom ci làmb ji en tant que euh, tey ku nekk ci association yor formation commencé yëngu ci formation di jàppale mbir yi tax ba yenn mbër yi tey ñu ngi am ay diplôme ñu ngi leen di insérer ñu ngi am métier te association bi moo ko waral association bi nga xam ne moom moo jiite comité bi Safarel nuyu nañu. waaw ah, ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax di leen remercier ci seen ci seen disponibilité di nuyu aussi téléspectatrices ak téléspectateurs yi ñuy suivre. di suivre site wasaare point waaw Cheikh Bamba euh, Cheikh Fadel xam nga Bamba damaa tàmm. waaw ah, Bamba Ahmadou Bamba <laughs> benn la sama waay la sama sëriñ la. <laughs> Euh, waaye Fadel ak Bamba benn la benn la. mais Cheikh Fadel ngeen dugg ci milieu làmb. Mhm. Euh, am si association taxawal ko mu commencé béy waaram. idée bi mën naa ne idée bu noble la ndax képp ku dégg association yëngu ci formation insertion ci làmb rek mhm. nit ñi dañuy téye seen gémmiñ mhm. dañu naan ñëw na ci bi mu jotee mhm. mais foofu ngeen commencé former ay mbër lu yàggul rek gis nañ 31 euh, lutteurs yi nga xam ne jot nañ seen diplôme ci nekk am na métier te bu nekkutoon ak association mu mbër ya duñu am métier donc ñu leen ci remercier mais ñu bëggoon xam loolu lan moo moo tax ngeen jekki rek. Mhm. mais il faut ñu dem ci làmb il faut ñu former ci bëri il ñu jéem leen a insérer. waaw ah, merci beaucoup ci question bu pertinente bi xanaa ngeen permettre ma rek ma defaat benn briefing ci euh, FILS. Mhm. ñu koy wax formation et insertion des lutteurs du Sénégal dafa nekk structure boo xam ne. Euh, dafa am comme objectif généraux xeex chômage euh, dimbali ndaw ñi ci liggéey parce que actuellement Sénégal euh, son plus grand point faible Sénégal wàllu emploi la donc structure bi dafa nekk structure buy xeex. Euh, chômage d'abord donc di yëngu ci développement di yëngu ci insertion di yëngu ci emploi euh, sa question mooy li ñu viser d'abord le monde de la lutte mm-hmm. euh, parce que actuellement dëkk bi comme ni ma la ko waxee son problème principal mi ngi situé wu ci le problème de l'emploi mm-hmm. donc jeunesse mooy réew te jeunesse boo ko bëggee jàppale il faut nga jàppale ko ci former ko mais aussi il faut nga jàppale ko gunge ko ci mu liggéey ñu am emploi donc association boobu ñuy wax fii formation insertion de lutteurs du Sénégal ci boobu cadre la judd ci boobu urgence en fait la juddu di nuyu di remercier président bi ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba Mboup mu nekk tamit euh, un jeune déterminé comme ni ngeen ko xamee nekkoon Italie yàgg fa di liggéey ba am expérience ñëw taxaw pour s'investir ci loolu ci domaine bi bon man en tant que président de la formation et de l'insertion euh, dama nekk membre d'abord ndax euh, idée bi bi mu taxawee le président bi ma seetsee Khadim euh, dama ko wax ne ko man bala may xool benn département bu ma bu ma gérer d'abord je suis membre tellement ni ma trouvé woon idée bi intéressante je suis le PDG de Carrefour Études une structure boo xam ne mi ngi yëngu ci formation ak emploi donc de ce fait Khadim dafa ñëw ma gis suñu point de convergence ma nekk membre mu ekkati responsabilité bu rëy mooy tout ce qui formation et insertion nga xam ne loolu mooy c'est l'essence de la structure mu dénk ma ko ma ko ci remercier di ñaan yàlla tamit euh, mission bi bi ñuy xaar ci man mu egg ak ndam donc ma fermer parenthèse bi ñëw ci sa question alors lan moo waral ñu njëkk ci wax ne formation et insertion des lutteur du Sénégal wax naa la ne la le problème de la jeunesse au Sénégal c'est l'emploi c'est c'est la formation d'abord waaye c'est l'emploi te xam nga ndaw bala nga koy xalaatal emploi mooy erreur bu ñu bëri di def ndaw bala nga koy xalaatal emploi il faut nga xalaatal ko la formation d'abord ndax bala nga ne naam nekk fa il faut se former d'abord avant de prétendre à un emploi ndax boo jiitalee les charrues avant les bœufs catastrophe rek mooy li gën a doy waar te dangereux mooy nit ñuy liggéey te formé wuñ leen formation c'est important moo tax ñu jiital formation et insertion waa léegi pourquoi des lutteurs ndaxte xam nañ Sénégal le monde de la lutte ni mu fi mel euh, kenn mënatu ko contourner te aussi kenn waranteetul ne secteuru làmb bu nekkul tamit au devant de la scène du monde du sport bokk na cay jiitu ndax mooy suñu cosaan moom la ñu xam mooy sport bi nga xam ne euh, dafa ñu dafa ñu dañu ko moom séddoowuñ ko ak kenn jéggaanewuñ ko comme ni ko gars yi di waxe mu nekk nag secteur bu am doole Sénégal alors FILS mooy structure bi gis ne mbër yi nga xam ne ñooy yëngu ci biir làmb ji bëri nañ lool te nombre bi dafay accroître euh, accroissement bu gaaw dafay yokk yokk bu gaaw te ñu gis ne malheureusement ñi nga xam ne ñoo ci nekk en activité au vrai sens du terme mooy ñi ciy bëre ñi ciy am combat ñi ci jot euh, am dara ñu néew lañ par rapport au nombre total mm-hmm. kon un très faible ñoo ci génn ñoo ci yëngu wala boog ñoo ci génn kon foofu il y un problème euh, il y un problème à constater li ci des lépp ci ñooñu mën a limal dinañ xëy di entraîner parce que c'est leur passion dinañuy suivre dina ñuy def seen réglement yëpp yi war ci làmb ji mais malheureusement ils restent les bras croisés kon xam nga ne monde buy gën a yokk ci taux de mu ngi noonu ñu gis ne urgence bi foofu la nekkee léegi structure bi kon ñëw ne ci ñi nga xam ne mbër yi ñi ngi sonn ñi ngi entraîné ñi ngi ñi ngi ñi ngi góorgóorlu te amaguñ lu ñu def nañu njëkkee ci ñoom jàppale leen jàppale bi mooy taxawu leen former leen d'abord bu ñu leen former ba pare ñu jéem leen a insérer dugal leen ñu liggéey pour que le slogan bi président indi muy un lutteur un métier mën a nekk lu am lu taxaw kon loolu moo tax ñu gën a euh, appesantiru ñu gën a song ñu gën a bàyyi xel ci mbër yi ndax dafa nekk secteur boo xam ne c'est incontournable benn ñaareel ba le nombre dafay yokk mm-hmm. au fur et à mesure il plus de lutteurs ñetteel ba ñi ci nekk en activité dafay gën a wàññeeku ndax gis nga làmb ji ñëpp gis nañ activité yi ni mu baissé woo ñëpp gis nañ ne làmb ji dafa xaw a wàññeeku ci côté promoteur yi ci côté euh, activité yi nga daan gis alors kon chômage bi dafay gën a yokk ci làmb ji te réew bu bëree ay ndaw yooyu entraîné amuñu lu ñu def ah am na ay tentatives yu yu koy yor léegi nag pour solutionner à ce problème majeur structure bi songu làmb ji dimbali mbër yi ñi nga xam ne ñi ngi nekk en activité te te te ay combat wala bëreegun combat wala génnagun ci làmb ji ñu jàppale leen former leen ñu liggéey ba nga xam ne sans la lutte dinañu mën a euh, subvenir à leurs besoins bu dul làmb dinañu mën a dund dinañu mën a yor seen njaboot ndaxte la majorité ay ay borom njaboot lañ donc loolu moo waral association bi ñëw cible mbër yi ndax secteur boobu ni mu mel d'abord. mais ñu gis aussi. Hmm. Euh, bokk na ci métier yi nga xam ne nii boo ko xoolee rek ci forme bi mhm. niru wut lu dal mhm. li tax niru wut lu dal xel mooy mbër mi tey saison bi mhm. ki ci gën a gën a gën a gën a doon jàmbaar mooy ki nga xam ne bëri na ñetti combat ci saison bi te ñetti combat ñetti journée la xoolal at bi ñaata ñaata bés la nga am ci ñetti journée yoo xam ne nii ci nga liggéey te li des yëpp kon sportif moom bu liggéeyatul mu ngi train donc li des ci saison bi yëpp trêve nga nekk. Mhm. te yow yaay ki ñuy woowee ku jàmbaare. Mhm. ñeneen ñi benn la benn combat la ñu am ci saison. Mhm. pare nañ ci dootuñu bëri. ñeneen ñi moom du sax mën nañoo toog trois ans soog a amaat combat. donc nekk milieu boo xam ne euh, xaw naa metti ci ñi koy fréquenté. mais aussi gën a dinaa metti ndax boo xoolee ñi ci nekk analphabète ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne nii jàng nañu. ñu ci bëri tey bu ñu fréquenté école aussi euh, CM2 la ñu yem. Hmm. ñeneen ñi mosuñoo fréquenté école amuñu métier teg ci. Hmm. yéen naka ngeen mën a def ba former ñoo xamante ni mosuñoo jàng école parce que boo xoolee ci milieu bi aussi ñoom ñoo ci ëpp. donc sa euh, question bi aussi c'est c'est très important euh, nekkoon na nag un problème sérieux yu bu gaa yëpp soulevé woon mooy yéen de peut-être. milieu bi ngeen ciblé comme ni nga ko waxee majorité bi jànguñu ils sont pas instruits alors nga bëgg a jël ñu ëpp ñu jàngul former leen soog leen a wutal métier waaye ci ndimbalu yàlla ñu ngi ciy parvenir ñu ngi ciy réussir parce que tamit nit booy xool sax sur le plan international léegi gars yi dañu démystifier diplôme donc dañu privilégier intelligence que diplôme de ce fait former nit jàngal ko métier euh, nekkatul loo xam ne dafay basé wu à cent pour cent ci ndax jàng nga wala jàngoo ndax mbër yi jànguñu mais gars yi dañ leen di tooñ rek naan mbër yi yeewu nangam mais man li ma gis ndaxte je suis très proche de li ma gis mooy majorité bi ils sont intelligents ndax nit mën na bañ a toog ci bangu école amul ses certificat amul BFM amul bac mais xëy na son intelligence est la dañuy wax ne jàng du wees donc ñun dañu sukkandiku ci loolu ci yooyu point pour engager wu jàngal leen former leen gunge leen la preuve mooy la première euh, expérience bi ñu def ak ñoom c'était une formation en sérigraphie il y a 15 jours lañ doon def remise de des diplômes à la mairie de Padoue donc de ce fait il y avait 31 inscrits 31 lutteurs inscrits mais ñoom ñëpp ils ont réussi ñoom ñëpp réussir nañ ko ak succès ba formateur bi dafa wax ne dafa am lu ko bett ci ñoom ni ñu gaawee mokkal Euh, temps euh, formation bi ci temps bi mu ko kale woon jotul ëpp jotul jotuñu exagéré ci temps bi donc euh, loolu par exemple preuve la ci ne nit ki boo jógee pour former ko avec sa passion avec son expérience avec son intelligence même bu dee musul a jàng école dina mën a réu mën a réussir parce que bu ñu fàtte aussi ne Euh, école par exemple français du du du du pays yëpp ñooy ñooy utiliser loolu par exemple dans les pays arabes ci langue arabe bi ci lañ amee lépp da ngay gis ko am doctorat am les banquiers et cetera mu xamul luy beneen langue bu dul arabe kon ñun sunu langue nationale war nañ ci mën a profiter def ci li ñu bëgg lépp forme ci nit ku mësul jàng école mais nga jàngal ko nu ñuy liggéeyee parce que formation bi ñuy defal mbër yi c'est pas des formations diplômantes universitaires donc dafay nekk des formations pratiques en général de courte durée durée bi dafay ndaw ñu former leen ci formation bi dafay appesantir ci pratique nu ñuy liggéeyee dañ lay jàngal déggoo français waaye di nga bu ñu la waxee ni ñuy tracer par exemple sérigraphie bi ñu doon def su ñu la waxee par exemple ni ñuy mesurer écriture yi ci t-shirt yi yi ci tissu bi ainsi de jàngoo français mais boo suivre di nga comprendre te boobu une la parmi des milliers wàllu formation boobu donc de ce fait problème boobu dafa ñu bëri dañu defe ne dinañu bloqué dina nekk obstacle mais may wax ne nit ki bu jàngul te am xel bëgg bu fekkee am nga xel bëgg nga loo bëgg jàng mën nga ko jàng loo bëgg a wu mën nañ la ci formé te vraiment gis nañ ne bi ñu leen woowee ñoom ñëpp dañu daw gën ñoo bëgg affaire bi parce que fekk na boobu ñoom ñuy souffrir ci euh, ci ci problème bi ñu bi tax a jóg muy problème de du chômage problème de l'inactivité donc bi ñu ñëwee aussi ñun gis nañu ne ñii bëgg nañ te ils sont intelligents donc de ce fait euh, formation bi lu pratique la xëy na jàng bi doon na ci nekk surplus waaye aussi ñàkk jàng bi mënu la bloqué mën nga gis ku mosul jàng nga jàngal ko nu ñuy desine jàngal ko nu ñuy gérer la preuve gis nga ñëw ñu bëri dangay gis ñu jóge daara ñu ne la mosuñu jaar ñu dem ba nekk ay PDG lool lan moo ko waral la passion et l'intelligence tant que mi ngi fi rek lépp mën nañ la ko mën nañ la ko sol. foofu yenn genre formation donc da leen di jéem a ay ay mën métier yi nga xam ne moom la ouvrier donc formation bi formation pratique yi moo ci ëpp mooy mooy mooy formation yi nga xam ne dañu lay jàngal en fait du du du bëri théorie wala boog du am théorie dañu lay jàngal comment travail nu ñuy liggéey nga xam ne boo ci jógee da ngay opérationnel direct par exemple la dernière remise des diplômes la sa dernière cérémonie ñoom ñëpp bi ñu leen laajee dañu ne li ñu gën a neex ci sérigraphie bi ñu leen formé Mm. en un si de temps mais rappelé na formation bi ci deux semaines dañ leen ci formé par exemple ñu pare am seen diplôme mais ñoom ñëpp dañu wax ne seen prochain combat au lieu ñuy dem di defarlu ji ay t-shirt ñoom ñoo koy confectionner seen bopp kon lan moo des mooy dañuy wuti les machines nécessaires pour ñoom di defal seen bopp seen confection de t-shirt casquette logo et cetera donc de ce fait gis nga ne boobu lu pratique la mm. à boobu aussi am na yeneen formation yu mel noonu tel que par exemple lu mel ni mécanique waaw mais mécanique moderne mécanique automobile par exemple euh, formation ci technologie bu bees bi oto oto yu bees yi euh, engin waaw engin yu bees yi ci ci suñuy prévision bokk na ci formation yi leen di defal nga xam ne boo paree di nga capable yow réparer oto di nga capable vérifier moteur di nga capable ainsi de bokk na par exemple ci hôtellerie hôtellerie donc dans le secteur de l'autoroute également prévoir nañ fa un large portefeuille pour dugal fa mbër yu bëri parce que boobu tamit hôtellerie xam nga formation pratique la bu ñu la jàngalee comment cuisiner wala pâtisserie ñu jàngal la ko ak sa intelligence ak sa passion donc mën nga ci am sa benn euh, certification bu gaaw ainsi de suite ainsi de suite donc la liste est très longue pour métiers yi leen di xaar engin lourd par exemple machinerie lourde bi comme tracteurs yi mécanique tracteur ak conducteur tracteur yooyu nga xam ne c'est des métiers modernes yoo xam ne ñëpp a koy soxla surtout avec les les nouveaux chantiers euh, ainsi de suite euh, dinañ dinañ ko soxla trop boobu aussi bokk na ci formation yi ñu prévoir donc la liste est très longue xam naa après dinañ ko publier ba ngeen gis ko. Euh, mais euh, des na beneen affaire parce que. damay jóge ci métier yi dem ci ci partenaires yi mais dama koy boole. Mhm. ndax tey euh, am na ay partenaires yoo xam ne ni normalement association bi mën na mën na mën na dugalante ak ñoom. ci mhm. mel ni euh, mairie yi. parce que mhm. commune boo dem rek. am nay mbër yu bëri yu fa nekk am nay écurie yu bëri yu fa nekk. effectivement ci biir métier yi gis naa métier boo xam ne tey. Euh, mbër yi mën nañ koo def. ci seen commune ñu kon ne di fa liggéey te duñ fa bouger. par exemple bu fekkee ne formé nañ leen ñu nekk ay chauffeur. mën nañoo liggéey ci commune bi. Mhm. commune bi des fois day am ay engins lourds yoo xam ne mhm. dañ koy mhm. utiliser. bu fekkee formé nañ leen aussi ci carreleurs yi aussi. pavage yi gis naa ay communes yu bëri yoo xam ne léegi tali yi ay pavage lañ koy def si ngeen soor du naa tali yu bëri yoo xam ne ay pavage la Diourbel bii ni am na tali yu bëri yoo xam ne pavage la te loolu ñoom mën nañ cee liggéey en partenariat avec mairie absolument lu loolu lu ñu lu ñu lu ñu bàyyi xel la sax comme ni nga ni ma la limalee les corps métier partenariat bi aussi daf ñuy fekk si nekk lu am doole comme ni olof Njaay di wax peccum leer bu neexee yaay jaa jàpp ci mbag yi structure bii di FIS wax dëgg yàlla day profiter di remercier ay moroomu structure am yu bari ndax dañu gis bi ñu taxawee woote ah ñi Sénégal yëpp ñor ñi développement ñor dañu daw si ànd ak ñun ñii di ñu jàppale ñii di ñu ànd ak ñun di liggéey Euh, maa ngi ciy cité parmi tant le ministère de l'emploi de la formation professionnelle Dame Diop moo nekk ministre donc ñu ngi koy remercier infiniment ndax dañu gis ne ba ñu démarré ba léegi toogul noppaluwul mi ngi ñëw gën ñoo bëgg affaire bi gis ngeen dernière journée bi FIS organisé Diourbel euh, pour sensibilisation kenn njëkku ko fa bi mu ñëwee dafa indaale directeur directeur généraux yëpp la indaale bàyyiwu fa kenn donc wane vraiment benn rigueur wane tamit benn benn taxawaay ci liggéey bi bu bu am solo boo xam ne ñu ngi profité di ko di di ko remercier infiniment donc li nga wax en terme de partenariat ñun ci actuellement ci partenariat la ñuy demee ndax ministère boobu ma la wax suñu partenaire la donc euh, grace à à lui ci la ñu am suñu première expérience formation sérigraphie bi nga xam ne ANAMO la ñu ci àndal keroog mairie yi nga wax aussi euh, kenn kenn kenn mënu la dem bàyyi leen ndaxte saa bu ñu former mbër yi ba pare dañuy bëgg ñoom ñu servir communes yi dans les communes ñu servir ci réew mi. bala ñuy xëy na génn di di di dem feneen yaa ngi dégg donc comme ni nga wax ci formation yi euh, côté côté métier carrelerie agriculture bi sànq dama ko fàttee li mais c'est c'est un volet important boo xam ne prévoir nañ ko mbër yi une bonne partie dinañ leen former ci agriculture